kon mbokk yi ñoo ngi leen di fàttali ne boo leen bëggee ay information ci yoonu murit xew-xew yeeg ku ci bëggee am jàngale lépp a ngi ci mën nga ngaa visiter euh, www.alazhartouba.com comme sëñ bi ni nga ko waxee rek euh, communication ñi ngi koy utiliser ci yu bari ci lu baax wala ca safaanu euh, ñu gis ne ni ngeen ko waxee léegi rek ni ko M6 Euh, jëfandikoo woon ba doon ci daanaka kii euh, xaw a mel ne ku ci xaw dal murit yi euh, ñu leen doon laaj lan ngeen di digal mbokki taalibe yi yi nekk ci àll bi nga xam ne dëkkuñu fa dañ fa ñëw di fa liggéey rek nan lañ war a doxalee ci dëkk yooyu yi ñu nekk ba nga xam ne yu mel noon bu soobee yàlla danañ ci mucc. waaw loolu li ci gën a am solo rek mooy lu mel noonu dina dina dina jafe nga ne nit ki nii ngay def naa ngay def wante ndax ki nga xam ne moom bu fekkoon nga toog sax euh, mu ne daf laa fekk nga tëdd bu ko neexee nga taxaw mu ne dafa toog kooku dafay jafe pour nga nga ko wala nga xam fi ko fi mu fi ko fi mu lay ni nga ko yàq ni koy bàyyiloo xel wante ki nga xam ne nit la nag nga xam ne moom ñun moom la ñuy jàppe nit mooy ki nga xam ne dafa ñëw pour bëgg a xam wala mu bëgg laa gëstu ba xam ci yow kooku moom waxtu walla ne waxtu wu nekk it na nga jéem a nekk ku ñaw ku xam it la ngay def ak la ngay wax parce que tamit euh, du càggi ne ku nekk rek yaa war a yaa war a wax ndax it ñu dëkk la micro rek nga mel ne sunu maas gi rek loo xalaat ci sa xel wala lu defe ne lu neex nga war a wax loolu tamit tegoo ci xam tegoo ci lu tegee ci yoon it loolu it ñu tey ci bu baax ñu mel noonu fu ñu leen gis ko moo xam waab la moo xamum naar la moo xam pël la wala séeréer wala ku man di doon ku ñëw ne yoon wi dama intéressé damay wax seetal ku xam yoon wi ñu walla ku xam koo xam ne dina xam la muy def dina xam la muy wax mu wax ca la mu xam bu ko waxee nag moom wàcc na lañ koy wëlbatee nag kooku moom du du yoonam nekku ca parce que kooku bu boobaa rek da nga mën a xam ne yow lii nga waxoon la mu ci mën doon rek nañ koy nañ koy fexe ba ku ñëw ci yow di jël eh, yow itam na nga na nga ko jëlaale moom na nga ko jël moom ba bu ëllëgee eh, bu feeñalee yow itam nga feeñal la nga xam la ngeen seqoon ko defee loolu itam baax na ci prudence bu am solo am na ci am na ci solo ndax eh, yoon wi ku defee ku dem ba jàpp ne xëy na liggéey walla dara ndax am na ñu dem nañ sax ba jàpp nay yoon wi ñu ngi maa ngi gis ñu naan daal loolu fu mel ne Touba barab la boo xam ne euh, dañ fay dañ fay dañ fay ay blanchis d'argent maanaam euh, xaalis yu sellut yi nga xam ne gëstuwuñ sax ba xam di wax na ay charte lu nekk boo fa demee daanaka euh, liggéey ku ne xam na sëñ Touba ak yoon mu ak économie bi nekk ci Sénégal li fi li ci murid yi di def depuis ba fi sëñ Touba nekkee ñuy dem ci àll bi di bay ay tooli gerte. ñu am solo lool ci mbay wàll boobu bi commerce amee ñu am ñi nga xam ne ay jàngkat lañ di jàng lenn mu ci nekk ñi ca féete kenn yëpp dañ caa am am am bu baax a baax ay ay ay ay ay ay ay yu am solo yuñ ca def mu mel ne nga xam ne ñu nekk ci biti xaalis yi ñuy am Touba nga xam ne boo demoon ci banque yi nekk Touba daanaka doo fa gis mën nga faa gis xëy na. xaalis yu bari yu dugg ci banque tal waaye daanaka doo ci gis benn nit bu yónnee lu mat lu lu am solo loo xam ne lu weesu dépense këram la bu ko defee ne yow ngay gëstu gëstu woo xamoo lu xew defoo ay analyse ba pare dégg rek daal di bind kooku honnêteté boobu malhonnêteté boobu nag moo tax dafay naqaree contrôler waaye li am solo mooy ñi nekk ci biti nañu am ak ñaw goo xam ne képp ku ñëw di leen ko wax ci yoon murid lu ci li leen ci laaj surtout muy ñu demee noonu ak ku mën di doon rek nañu seet ko xam moo yem ak ñoom fa mu war a ñoom ñoom tamit bu leen rëcc ndax ñëw la rek jël la film la jël wax dem nga bàyyi ko tey bu fekkonte ne yi am fii yëpp ñun tam dañ koo jëloon jël fañ jaar tey coono bu da am ndax bu ñu tegee seen yëf mën ngaa teg bu ñu waxee mën ngaa wax bu ñu bindee mën ngaa bind waaye ñi tamit ubbi ko ba ëpp ubbi ko ba doo am ku ne nga wóolu ko tamit weesu nañ boobu jamono. parce que nit ki mën naa euh, nekk ci biiram mu xam ne moom du du du wax lu amul du war du fen du nanga nanga waaye mënu koo seet mënu koo mën mënu koo mënu koo mënu koo gérer ci keneen nit ki kooku nit ki kon nag loolu ci bàyyi ko xel ñu fexe daal ba nga xam ne daal bu ñuy lu leen ni fu ñu mën a nekk ñu bàyyi xel loolu bañ di gaaw a tontu ci yu bare lu ñu xamut ñu gàttañ lu ca ndax lu ne dafa am ñoo xam ne looloo leen di loolu mooy seen seen wàll ñëpp sax nag war na ñoo xam waaye nag ginnaaw loolu mënta nekk loo xamul lu ne rek da nga ciy da seet ko ci xam wala da ci xam nga yem lépp lu ñuy jël ci yow it fexeel ba ko koy jëlit mu nga jël ci moom moom it bu bu ëllëgee lu mu wane ci yow nga mën ko wane bu ko defee sedd day daal di yomb waaye ku ñëw wax la def la daal di dem yoonam nga bàyyi ko ba ëllëgee bu dee wax doo am lenn loo ko firndeele kooku tamit mooy indi yu ci bari waaye daal nekk am am am prudence bu bu téye sa bopp bu koo xam ne bàyyi xel yu bari kooku moom bokk na ci li nga xam ne daal ñu leen koy bàyyi loo xel hmm, dara bañ leen a bett wala bu leen bettee te bañ leen a man hmm, euh, jërëjëf. mbokk yi kooku doon Serigne Mamor. ñu ko doon laaj ay laaj ci euh, bisu Serigne Touba yi ci Amérique ci communication ak ak lim xala lim doon digal mbokk yi rek ñu jëm ko lu ci mel ne prudence bi doon wax ñu jëm ko jéem a prudent ba euh, yu bari duñu leen ci dugal kon ñu ngi leen di fàttali rek euh, ku ci bëgg ay information boo demee incha allah alazhartouba point com di ngeen ko ca fekk salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.